xëy fësal Ahmadou Laye Thioub Ndoye dikkati na réew mi day saa si tembe moo raw cin luy bax amul ruq bu sedd turbine yéen kaay na ma da teg sa baaraam benn par benn ma nitale li xew ci réew mi te doy waar lool yéen kaayub dee média bi ne ma njëkkeel ci ñu doon liggéeye ca Sotrac ca ama Sénégal ak ca SIAS ñooñu nga xam ne ay mag lañu toll ci retraite ñoom ñëpp saa si tembe sooboo ci nañ ci xiifal ay milliards yoo xam ne nguur gi da leen ko ameel digoon ne dina leen ko fay nu mu gën a gaawee ci la ñuy ba daanaka paaya jeex nan seeni njaboot tasaaroo nan yenn ci soxna faatu nan ñeneen ñi daal di dem ña ca desug néew di sàkku ci nguuru Sénégal mu jébbal leen seen xaalis ba tey France daal di xidéem ay diggee daal moo fi am paaye nag ak seeni soxna sooboo ci nañ ci gréew tribune yéen kaay xamal ma ko gréew goo xam ni saa buñ ci sooboo mu mën leen andil maar day taali ndax ñoom ñee ay évacuation da ci am tribune yéen kaay ne ma waxtu woowu ñoom baykat yi bàjjo bi ñu ngi daal di mere ba futtu nguuru senegal seen nametug ren moom xalaatuñ sax mu daal di neex ndax njëgu gerte gi nga xam ne ci juróom fukk ak juróom lañ ko daal di fixé loolee nam na leen andil jafe-jafe moo tax mere président Macky Sall ñoom béykatu réewum Sénégal direct news ne ma jàngale ak réewum Sénégal moo nar a suux ñaara ngi nii de lycée bu xel comme biram yéene kaay bi ne ma professeur moo fa amul waaye yéene kaay bi ne ma desal ci njàng meeg njàngale mi ma wax la nag jaxaan na ma gi nga xam ni ay ndongo yu nekk ca Fambine ñi ngi koy daal di dund yéene kaay bi ne ma bin ak village la ab île la mi ngi nekk ci Sine Saalum digganteem ak Ndakaaru jël Joob Sangomar téeméer ak juróom fukki kilomètre moo ci dox lu toll ci juróom benn téeméer juróom benn fukk ak juróom ñeent ci nit ñoo fay yeewoo yeewoo fanweer ci ay kër moo fa nekk mi ngi nekk ci commune bu Njirnda bés bu yàlla sàkk xale yi nga xam ne ñooy jàngee Njirnda te di bàyyeekoo ci Fambine dañuy nag jéggi ab dex boo xam ni benn pont su ndaw moo fa nekkoon waaye dafa daal di nërmeelu yéene kaay bi ne ma jeexagul de ndax pont su ndaw soosee 2008 lañ ko fi taxawaloon pont bi nag daal di aw ci digg dex su rëy soo xam ne nii mën naa am jaan mën naa am i jësit ak lépp loo xam ni mën na lor doomu aadama dex googee ci la ndongo yi góor ak jigéen di xuus bés bu yàlla sàkk ni kaw bopp xuus ba ndox mi weesu leen ci dënd ñu daal di jéggi su ko defee ñu mën a dem jàngi yéene kaay bi ne ma tabaxu pont ba rek laa la wax risque la waxu malaak nag ndongo yi nga xam ne saa ñu xëyee ña ngay jéggi loole censeur bu lycée ba daal di xam ne ni ndongo yi ci boppam seen réussite ci loxol yàlla la nekk ndax góor ñi moom ñi ca ëpp dañuy daal di bàyyi dem màngaani nii si ne ma jafe-jafe yi nga xam ni xale yi fam bi ni ñu ngi koy dund ministère de l'éducation nationale ña ngi ko cay interpellé waaye nguuru Sénégal mu daal di xool xale yi nga xam ni seen ëllëg moom daanaka lëndëm crise la nekk ndax seen i jàng du ñoŋ le soleil yéen kaay ne boobu Sénégal daal ma ngi nuy bégal ci tex tex maree muy médecin yi nga xam ne dugal nañ leen ci kames juróom-ñaar fukk ci candidat la ñu woon juróom benn fukk yeeg juróom ñett admin nañu l' observateur daal di may xamal ne nañu wax ci sodde fi texte de ci tànku tëj la daal di nekk Dakar Times daal di may xamal ne ay notuk Sénégal ca bitim réew xel man na caa dal ndax Sénégal na ci wàllu koom-koom ak PIB par habitant daal di nay rawee Rwanda téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yaak ñett benn étude daal di ginnaaw ci wàllu ger Sénégal bari na ci réalisation yoo xam ne amal nañ ko ci wàllu qualité vie bu askan wi Sénégal bokk ci ñetti dëkk yi nga xam ni neex naa dundee ci dénduk Afrique séq ko Côte d'Ivoire ak Kenya Dakar Times daal di may xamal ba tey ne Sénégal daal saa si tembe mooy train bi gën gaaw ci wàllu koom ci dénduk Afrique critique yéen kaay mel ni ku naan maan waaye boobee taskatu xibaar seenuk dundi neexu fa diggante opposition ak nguur gi gaa yaa leen di ŋàññi na ca nees ñuy jaboliser taskatu xibaar yi ku ci nekk ci ñoom ñaar di di nguur jël ab intérêt ko ci kaw taskatu xibaar yi fu la neexee jëmalee Papa Alé Niang saa si tembe mi ngi ci kaso bi moom gouvernement gu Sénégal daal di xam ne ni moom Papa Alé Niang la mu def du wàllu taskatu xibaar gars yi naan leen bàyyi leen ko mooy seen jàmm 24 heures yéen kaay ne ma aljuma ji ñëw ngi jëm ci marché ngir papa Aala Niang ñu di koy bàyyi nu mu gën a waa société civile daal di xamle ni Papa Aala Niang bàyyi ko daal mooy jàmm ji Momar Jong daal di xamle ni fii ak benn fan ci weeru décembre Papa Aala Niang bu ñu ko libéré wul dina dugal Sénégal nag ci liste rouge boo xam ne taskatu xibaar yi dañ leen di caxat caxatee di leen maltraité maître Assane Dioma Ndiaye daal di le ni taskatu xibaar yi day buñ leen moomee takk buum ci seenu baat di ñol ñolal ci affaire Papa Aala ñan bi ay taskatu xibaar nag daañu rate rendez-vous ak histoire moom maître Assane Dioma Ndiaye ci l'indépendant naa yéen kaay xamle ni saa si tembe tënk leen lan bëgg de ba duñu saxat duñu wax jëmale 2024 lu nar a xew 2024 tribune yéen kaay ne ma tekki sa loxo ma ñëw le témoin yéen kaay daal may xamal moom ne ma justice bu réewum Sénégal la ñuy laaj kayit yi daan innocente dit xamal kon yow bokkoo ci lan lay jiiñ bu demee nag ba kayit yooyee mënta andi benn firnde ci nit ki deful yëgul tinul ban justice la ñu am yéen kaay bi xëy daal di tey sëgg nu mu gën a yaatoo daal di xam leen nag ay actes notariés waaye tam ay certificats médicaux daanaka jëriñatul dara ci ci su réewum Sénégal bu nu sukkandikoo ci affaire Karim Meïssa Wade ak Ousmane Sonko libération yéeni kaay ne ma wàllub justice Seydina Omar Touré day digganteem ma nguurug Sénégal coow la jeexagul cour suprême la ñu daal di jagat-jagatee jëm moom recours am bii nga xam ni nee na excès de pouvoir la ñu def ci moom gannaaw ba ñu ko daqee ci cadre yu gendarmerie quatre novembre la chambre administrative yii di ko daal di attee tey diggante nguurug Sénégal ak opposition bi l'enquête quotidien daal di xamal ne ku yeb jàqare ci de ndax nag dialogue politique ci boppam moo amatul ci réewum Sénégal ab ndëg salu yi daal di am diggante nguur geeg opposition bi kenn wóolootul sa morom mu njaay Cissé ONG trois d daal di xam le ni Macky Sall ak président Ousmane Sonko ñoo war a wooteeg waxtaan waxtaan woo xam ni intérêt jàmm Sénégal moo ko tax a jóg dëcc fay noonu na li ñee daal di xam le ni dialogue bi ñu mujjee def daal la ca daal di tukkee loole la ñu a jëfee ci réew mi tribune yéen kaay sam pub laaj ndax manees na ko jëfee bu nekkee ci réew lan fii aay am ñu ko bëgg def mandat boo moytul mooy taal réew mi moom Moussa Fall responsable Benno Bokk Yaakaar daal di xamal président Macky Sall ne ko man de boo ma joxee ab nopp ma wax la dëgg président Macky Sall bul jéem seet ñetteel bi mandat bul déglu ña la koy sant Macky Sall nag dafa war a xool li daloon Abdoulaye Wade bërki démboo Ndiaye daal di seyal coalition Benno Bokk Yaakaar ku ne dem ca gëla guyam Sud Quotidien moom daal di may xamal ne daal dinañuy soobu nag ca assemblée nationale ci wotu budget yi waaye au conseil bu collectivité territoriale tey mi ngi ci guddi gu bët setagul Ismaïla Madior Fall nationale bloqué budget bi moom président Macky Sall yoon may na ko beneen prox ndoll boo xam ne mënees na faa jaar Walf Quotidien ne ma diggante assemblée nationale ak maire yi loolee nag mi ngi dugal Pastef ci guddi gu bët setagul commune bu mandat la wax Ousmane Sonko ne dañ koy aaye ci parteem Biram Souley Diop mel ni kuy diirante mbag ak Sonko xam le ni kenn mënu koo lu muy def l'indépendant yéen kaay daal xam le ni moom Biram buntu yi di woote di waxtaanee programme ñi nga xam ni tey ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di mbel-mbel yi kenn gisuleen leen ñu woon biram ne bu waxtu wi jotee dina xam ban dogal laa ci jël waaye nag du kenn kenn moom ma koy imposé source a daal may xamal ne waa APR day njaw a ngi de si xam bin ci ñoom xale bu jigéen bii di Nicole fay dañu koy tuumaal ne dafa faat ab bébéem baayu xale ba source a ne ma du kenn ku dul ab responsable APR nekk fii ci ci da kaw moom mi moo tax jëf ji ma ñëpp déggoo nañ ci lenn de waa jii nag farub Nicole la woon te nee na bu waxtu wa jotee dana ca wax l'observateur ne ma daaneel ak man ma xamal la ni yar gone yi day daal nay jot ndax nag ci 2020 gii gis nañ ni ñaar fukk ak juróom-ñeenti faatu bakkan yoo xam ne am na ci réew mi ay tuut tànk ñoo faat bakkan yooyee te 2022 gii mbir mi daal dina yokk ba maar day taali ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm tey yendoog jàmm Mantoulaye Thioub Ndoye merci ñu ngi lay jaajëf